faahilun mafaahalatun man daxaa malaab aka way romb naa falam bu jabis dégg ñuy tëbal aka way faahilun mufaahalatun man daxaa malaab aka way romb naa falam bu jabis dégg ñuy tëbal aka way seeni mbër yu ndaw ñanga mbër mu ndaw alaw le nga way man ma dal di way sunu mbër seen waxin wala bëgga roy ahmadul yeddaali yu kët pas pasam balaa amee tey diglu leen ma bàkk fi mbër mbër mu yàlla fal du ko jay donnu bamba doy ne di mbër toogelal ba weesu na cey xat warista martabatan yaa xalifatab na xusay mbër mu doon ta bantu na dal mustafa di mbër mi nu doy dellu leen ca làng gawaay tuubi leen te jébbulu tey bër gu ngi fi nun lambi diine jaa ngi fi tey géew bi yaana daama ko wub dem na taaw bi dar na ko tey baarikal la mbër du leloo tekki leen ko seeni tubay taaw bu taaru taawu mbiram bay ba mbakke am ngalu rëy xat hawayta maharifatan yaa xadiimu najlul way baarikal la yal na la jig yal na fan wi guddu di wey yaay donay sëriñ bala jur walli yandu yóbbu sa way jaggi ngéena lalli laloo callal ak samaam ma fa ngay yow kaman kaman kamu man daan mbër yu mag yi wey yow kaman kaman kamu mbër yu mag yi yële wey wungalam bi mbàkke jëkkër samba yande ngaana ngi tey xad rotinata man si latan fii xulóobina kaw bay bari yépp tuum nañu far doomi bamba donn na ñay doomi ñay dafay bari laf doomi gaynde day bari ay ak ñeloor ndaama du ko yab bay du suuru mbaaraki boy yaara nag sagal duñu yam njaw du mel ni lem gu ñu fay yow sa ay gi neex na fi nun yal na ñam yi sotti te doy yow yërëm nga ndaw wegu mag waa ju ñëw nga dal di ko may isxadayta haajatana Mustafa xamiinu su way yërmande la tee mën a dem yow la Bamba def sunu ndey ngir njaboot gi yow lañu xam ndey ji seex nga yaa mën a sëy baayolan jirim lanu won yaanu nam palaat ba nu rëy waaye noonu ngay mën a mel yàggtil bañay juru bay yow sa baaye sut sunu yoy ak sa wat du tol ni ki guy doo kemam ñi lay defi kem yàggtil ba bay juru ñay ahmadam ni aminatin sibtu balla xaburu ba ngay ahmadam ni ahmadaman jadduhu saliilu wali say sëddi te gën sunu yoy yow sa yaay a gën sunu ndey néegi sey dañuy bari ngor gàttu làmmiñ te gën a way yooyu tax na dambe nga far adduna ak alaaxira tey tiitarub farañse bi ak baatinub sëriñ bi nga ngoy Mustafa damul li nga am Bamba rekk ka am lu ni day yow tubaab bi jox na la mbég Bamba dañ ko daa defu ay am nga mantu am nga galan jox la ay mi day di la way kuñ kalaame bay bëgga tëj sootinoo mu ñëw te du lay kuñ tëjit nga tëj ji mu ñëw yow samay gi weesu na cey Mustapha Kamal nga di waaye buuru Misra ngay bëgg roy mulku Misra mu ku ko am xatu warista mu ka sulay sun saxaar gi yaa ko dawal penku penku léegi ñu xay yow sa yen bi diis na fi nun xar mu baa ngi lay bëgg a sunu yaa ko fi faj bor bu rëy nga dal ko fay yow tabee la tee maanaam bayti maal bu réew mi di xëy kon nga boole ay million waaye doo ku bëggate nay tab donoy tabeeg mën a muñ doomi xaw su day rëy may ak wilaaya yan la bu rëy xut bu xol ba day rëy rëy xat waris ta tarbiyatan fi tariixi mis lu uway bamba mbër ma sas na la dem tool bi yaa bay yal na doole ji gën a rëy jaw jumaa ji doy na la mbay muslukat yi nañ la soxla yaa ngi lay bëgg a rey waaye sas yu mat la ragal bu yàlla taal du ko fay loonu laaj danan la ko jox donga yépp yépp a ngi bay bul nu ñéer lu deenu digal donga yaa ngi lay bëgg a yey yow sa mbóota tax ba nu am deenu sas sa baayanu may bamba moonu tër bi yawoon tër xiyaal te tas fiya tey yow sa mboota tax ba nu am deenu sas sa baayanu may bamba moonu tërbiya woon tarxiyaal te tasfiya tey jàkka jee di mujj ndigal tey ndigal amul lu ni day war na noo saxal lu ca jëm addi yaa ngi doon bëgge wi war na noo yabal ñu ca dem yéena tax ba tërbiya ay noppi naa ko xam li ma xam xam ni kuy géwél dana way bakk waa ngi maa la ko way njàmme ka du suq ci way mbër mu fii ta bantu fi nun nan ko jàggi ruut ba mu say xulli man yubaarisuna mu lil mubaarisi shay ngeen ji ñaari sel mari buur linnabi sihir ali